tuubaak tiwaawan ñaseen jaamala canaba kamaaka laayeen wa fum cira teralal kadaaka saaxi ma albaaqiina ajmain yow foo fi gis kenn ci ñoom fonkal te bul safoo ak kóolute di seetaan chaîne bi woy leen di ko seetaan ak di ko topp ndax seen cofeel mooy sunu mbégte te li gën a neex mi ngi ci sunu kanam. Tivaouane 7 TV Tivaouane 7 TV Tivaouane 7 TV. abonné leen ci chaîne youtube Tivaouane 7 TV te tamit bu leen fàttee activer cloche notification bi pour mën a recevoir bépp bataaxal bu ñu dugal ci bu nekk. ñu fi nekk waaw. ñu ay jeunes xam nañu ay jeunes maam mooy paa bi ñu ay jeunes. bu gan ñu duggee ba noppi nag. ñëw bi porte ñëpp jàll nañ bàyyi rek ñi dugg ñu ngi leen koy ñaan bu kenn xëccoog waa ñi sol gilet jaune yi na ñëpp xaar ba kilifa yu dugg ci biir ubbi ngi ñaan ñu bañ a dugg ci biir kii bàyyi ko bàyyi ko moom sëriñ bi caabi bi joxal ma xëy na. seen teraanga la yéen ñëpp. yéen ñëpp seen teraanga la caabi jumaa jaa ngi nii. incha allah bisimilah. waaleykum salaam. waaleykum salaam wa rahmatulah. Mamar Diop. bisimilah yow jiit yow jiit. Mamar déedéet déedéet déedéet dugal caay dugal caay dugal caay bi. tëjal mu dugal caay bi dugal caay bi. Serigne Mansour kaay xaaral xaaral xaaral Serigne Mansour kaay. mi ngi ñëw voilà aca dugal caabi dugal caabi waaw baax na ma daal di Omar Ndiaye porte bi porte bi ngeen julli rek pour Thank you. Sí, sí, sí. ñu ngi ci biir jumaa ji ñu wàññi coow li waaw ñu ngi ci bir jumaa ji ñu wàññi coow li ndaxte nodd nañ zawal daanaka léegi ci biir waxtu lañ nekk nañu gën a tegginal wàññi wax ndax li رسوله ومخباره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

الرحيم ملك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما آمين والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا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 بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان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 وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والآمال وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والآمال ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان أمنا من العذاب القبر من سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت اقدامنا على الصراط واسكنا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان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 اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا في القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة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 وارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالزال زكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعزا وبالنون نورا وبالواء وصلة وبالهاء هداية وباللام ألف إلفاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين العالمين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا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 اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد إنك لست تخلف الميعاد يا ربنا يسر لنا مرادا يا ربنا يسر لنا مرادا يا ربنا يسر لنا مرادا بجاه وبسر وبحق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 waaye Pape jaral nañu rek moo ñu wax ko mu jox cadeau bii Papa kon la avec la ko Seydou ak comité de gestion ak carte bi yëpp jox Papa wax ni sax def nañ ko citoyen d'honneur du quartier Cité Pape ni ñu ni waaw Pape ñu ngi pareegul. macha allah waaw. waaw ba tey tableau bi ñoo ko jox Pape bokk ci rek yi nga xam si bëgg nañ ko woon suñu mbégte ndax lii dafay firndeel rek ku def lu rëy am lu rëy gannaaw mënuñu koo fay nag ñu def loo xam ne symboliquement dana wane si Pape Ndiaye mi ngi ci xol yi. imam nag sax mu ne ni kenn ku nekk suñu nekk. na koy ñaanal ñaanal mbooloom jullit ndax li mu def lii lu rëy rëy rëy la Pape na la yàlla fay yal na yàlla guddal fan yi ñu ngi la koy ñaanal ñaanal ko sa njaboot waaw ñu xaar dañuy jeexagul ñu xaar incha allah man a tëj. dugalal bi maa ngi leen ñaan dugalal bi incha allah dugalal bi xam na ci yàlla yaa ngi ko. incha allah incha allah maa ngi maa ngi ànd ak sama rakk. mu di Serigne Mbaye mu di Serigne Abdoul Aziz. ñu duppee ko maam Abdoul Aziz Dabakh. di doomu Serigne Babacar Sy. di Serigne Babacar Sy. ibnu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz. di Serigne Abdoul Aziz. ñu di ko wax Njool Fouta. Njool Fouta. kii doomam la. man xam na Njool. waaw moom xam na Njool. xam na Njool Fouta. yëpp na ba ba ba mu étage am. Ah, dem nga ba sa étage am ci këram. macha allah ci këram. ci ñeeg bi man. seen foofu la sama ah, dugg ci néegam ok ci doomam la la maam Abdou Kaye. kon jox ko kër boobu. sëñ Abdou yow it ñu ngi lay ñaan li sa mag ji wax rek sëriñ Abdou ibnu ibnu Ndiol Fouta yow ñu ngi lay ñaan rek sa mag ju baax ji moo la koy ñaan ni kado bi nga ba léegi nga jox ko imaam Thierno Seydou ñu xam ni rek mi ngi bokk ci teraanga yi xam ne si ñi ngi ko jagleel Thierno Ahmed Tidiane Babou Médina Gounass ak Dental Dakar. milliards ñu gis cadeau bi rek moom it ba léegi mi ngi bokk ci cadeau yi nga xam ne sii ñu ngi ko jagleel Thierno Ahmed Tidiane Ba bu Medina Gounass ak mboolem dental daaka ak ñi nga xam ne sii ñooy jàppale imam lii buñ ko joxee rek dafa mel ne xaalis généraux yëpp jox na leen ko waaye nag buñ ko joxee Thierno Ahmed Tidiane Ba Seydou Sow moom it kaamul alxuraan la lépp rek wane ñu mbégte ci moom waaw dañuy wax ni quartier bii nag kaamil bii nu yore nag ñu ngi wax ni quartier bi yépp nag wa baada ma qaddamahu kurdiyu ra an nabiyal mustafa safiyu Cheikh la Tijaan am tariqa bu mu yoroon Mouhamadul Kurdi moo ko tariqa boobu waaye du ko Seydina Mouhamad feeñoo dana ko bàyyil mbooleem tariqa boo yor Cheikh na ko balaa bàyyi tariqa bi yor danga may jox li gën li ma yor ma soog bàyyi مونو سيد حجنايان امر النبي امامنا بتنزل لإفادة الأخلاق بالورد الجليل فأجابه بمقال صاف الرداء بكي فتبارك الله أم لونغ دار لي جيب ديغل سيرك دي ني واخا نيون فوك مينيت لا واخون يا كان ناني فوك مينيت بو مودول جيم لا تا ديس باريو الشيخ الحاج ماي نانا بول لا تري دارا ولا بول لا واخي نالا يمال فيه bul dama dama dem ba fan la wax yem fa soo ko séenee rek taxawal foofu moom la yàlla naan wa tilka xududullahi fala taqrabuha yàlla waxaan wa tilka xududullahi fala taxtaduha yàlla ne wa man yataadda xududallahi faqad zalama nafsa kon walaw laa diqul waxti la jidnaa bi aksara walakin xaddul kalaami ma afaada almustamic وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mboolem luñ fi yàlla yépp yàlla nañu ko yàlla fa tabaraka allahu ñu ngi ñaan sunu borom mu ajal ñu ci masjidu rasul Cheikh Al Hadj Malick Sy Maodo moo ñëw tudd ko ba pare tuddee ko bàyyi ñu baax ne muy Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh sëriñ bi nee na wax ja nga xam ne moom la waykat ba wax ne lépp lu rafet lu nekk rek am na lu ko gën a rafet nee na fa tabaaraka allahu bu fekkee jàkka ji sax amagul tur mën nañ koo tuddee masjidul rasul ndax ñu aj ko ci masjidul rasul bi nga xam ne moo nekk ca Bomba Abdullahi ibnu Mas'ud moom lañ ko tuddee macha allah sëñ bi nee na fa tabaraka allahu fa tabaraka allahu nee na loolu daal lu rafet la fa tabaraka allahu mat na macha allah sëñ bi ne su ko defee nee na fa tabaraka allahu ñu nag tàggatoo bu dul tàggatoo bëgg nag ngeen ñaanal ñu yàlla ñu delluwaat ci xadara maam Seex Sidil Haaji ba ci jàmm fa tabaraka allahu ngeen desuñu waaye ñun ñu yóbbaale leen waaye nag bu leen fàtte ne mukk ngeen bokkee jàkk fa tabaarakallaahu ñëpp taxaw seeni mbagg tolloo fa tabaarakallaahu nee sàpp yi si biir jàkk ni ni muy rafetee na xol yi tolloowee loolu xol yëpp yéene kenn ku ne sa morom jàmm fa tabaarakallaahu kër yi ni nga xam ne noonu la taqaloo na xalaat yu baax jëf yu baax wax yu baax taqaloo noonu ci seeni diggante nag yana na sunu borom nee na yàlla nee na su ma demoon daal bay wut dëkkuwaay ci biir jaam yi xol bu set man yàlla daal ci xol bu set fa laay daal di dëkk fa bi ne kon nag dañu rafetal xol yi murit xaadir tijaan laayeen nee na ko tudd yàlla boobu yàlla ko yàlla def ci xol yi nee na fa yal na yàlla nangul ñu sunu julli waaye mboolem luñ ko jaamu yal nañu ko yàlla nangul nee na ibaadaat yeeg azkaar tasbiixaat yeeg takbiraat yëpp yal na ko yàlla nangul nee na gise gii daal yàlla bu mu nekk sunu mujj gise yal nañ ko gisewaat ay déwén yu bari ci bisi ci at loolu ñu ngi koy ñaan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sunu taalibe Cheikh ñu ngi ñaan yàlla sunu pas-pas yàlla nañu ko yàlla sàmmal yàlla nañu ko yàlla sàmmal nee na yaakaar yi daal yàlla ko ko sunu borom tas fa tabaarakallahu fa tabaarakallahu ñu yemale foofu kàddu yi ñu ñaan yàlla insha beneen yoon ñu gisantewaat waaye nag jaajëfal imam Sow bu baax a baax ak mboolem maamu yi nekk ak moom ci jàkk ji di ko dimbali xale yi nga xam ne nag ñoom la ko bis indiwoon fii ñu doon eggale liggéey bi fa tabarakallahu ñooñee ñëpp yàlla nag bu ñu umpale xéewalu yàlla ni kala yu weexee yal na yàlla weexalee bopp yi noonu yal na yàlla satalee xol yi noonu yal na yàlla sellalee làmmiñ yi noonu bijaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam comité de gestion bi fi ne ñoom itamit yal na yàlla def ndimbal ci ñoom lii nii nag dafa laaj nag entretenir dafa laaj set. dafa laaj nag di aspiré. comme nag ñu ngi koy defee ci zawiya bu Cheikh Seydil Hadji Malick di ko def nag ci zawiya Cheikh Seydi Aboubacar Sy. nee na képp ku fi julli. yal na yàlla aj sa julli. fa tabaraka allahu ci jaamu gi nga xam ne malaayka yi ñu ngi koy jaamu suñu borom. te yàlla nangul. yàlla guddal fan yi waaye nag yal na yàlla sàmm. nee na imaam bi ñu ngi ko yàlla yàggal ci kanamu njaboot ji ak mboolem waa jàkk ji yëpp nag ak dëkkandoo yi ñu feebar te nekk ci kër yi te daan jooxe fii seen farata yal na yàlla yëkkati leen ba ñu ci seen biir muy góor muy jigéen. tabarakallah nee na ñu jàng fatiha salaatul fatiha ñëpp nag ñu dugal yéene yëg ba duba gi insha allahu taala nee na jàkka ji wala jumaa ji am nañ ci yaakaar lu fi waay ñaan yàlla dina ko nangu insha allah ci barke bismillah incha allahu taala. tàggatoo ak ñoom. آمين آمين يا رب العالمين آمين

D'accord. D'accord. D'accord, madame. La tata pizza abadi.

الحمد لله هذا الشيخ رباه عين الوجود الذي أعلاه مولاه ووي ويل ما نايله يوم القيامة وهي ما نايله ذلك سملغت ربا بلا غويتك وكل أصحاب علنا قد تستقام فيا الله من حاول ويلت منايل من وساءت لي إرادته أتاه ختم من الرحمن والجاه وساءت لي Benim program programı waaye nag bàyyi leen a def lii ñu dajale fum ci rek teralal kazaaka saaxi ma albaaqina ajmain yow foo fi gis kenn ci ñoom fonkal yéen ñi safoo ak kóolite di seetaan chaîne bi woy leen di ko seetaan ak di ko topp ndax seen cofeel mooy sunu mbégte te li gën a neex mi ngi ci sunu kanam Tivaouane 7 TV TV Tivaouane 7 TV TV te tamit bu leen activer cloche notification pour recevoir bépp bataaxal